بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا جامعا لوجوه المحامد والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وكل من استنى بسنته ودعا بدعوته واقتدى به وبهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب الأكبر الكبريت الأحمر حفيد رسول الله شمس الولاية الكبرى سيدنا وشيقنا ووصيلتنا إلى ربنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالم التجاني أما بعد أيها الإخوة والأحباب نحييكم بتحية إسلامية نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمون والمسلمات عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وستين سنة وبدأ دعوته بعد سن الأربعين أي أنه ظل يكافح ويجاهد على قضاء الوثنية ونشر تعاليم الإسلام والحضارة المؤسسة على التوحيد والفضيلة فكانت ساعة عمره شهورا وشهوره أعواما وأعوامه أجيالا ويجاهد بلسانه وصيفه ويعلم أصحابه وأتباعه أمور الدين ويؤدبهم ويعذبهم ويأمر بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحذرهم ارتكاب المعاصي ويرشدهم الى صلاح الدنيا والاخره وبهذا قال الشيخ الحاج مالك سي عليه رضا الله تعالى المالك وبالغزوات والايات جاءوا كما جاءوا من الوجه المزوني وقال في قصيدته اللامية أتانا ويدعونا إلى الدين جملة فمن لم يجب دعواه فهو ذليل ونصلي ونسلم على خير خلقه وأتم رسله سيدنا ومولانا محمد الناصر الحق بالحق طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم وعلى آله وأصحابه غر الميامن ورضي الله عن خليفته الأكبر وارث سره الأبر المرحوم سيد الحاج مالك سي رضي الله عنه mbokki asalaamu aleykum asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye fay leen ma nuyoo waay maa ngi nuyu ñëpp ci turu lislaam nuyoo bi gën a mat jëmale ko ci mbokki jurit yi fi teew jëmale ko ci dëkk bu tedd bii di ndar dëkk bi nga xam ne nekk na markazul ilmi centre xam-xam la kilifa yu tedd yi ci àdduna bi yépp li ëpp ci ñoom jaar nañu ndar nuyoo boobu ak ziyaara boobu ñoo ngi koy def ñun ci làmmiñu sunu sëriñ Seydi Aboubacar ibnu Cheikh Haji Mouhamadul Mansour si moom moo waxoon ne juróom-ñeenti waxtu ak genn wàll na fi waykat yi nekk fukki waxtu ak genn wàll naa fi nekk di waxtaan ak nit ñi ci sayyiduna Muhammad ak lu aju ci moom mu ne ma bu la kenn estobe lu dul bu ma la defee siiñ yaakaar naa Serigne Mbaye ku koy sosal doo taxaw ci làmp yaakaar naa doo taxaw ci làmp ñu bëggoon rek ñu mayante ndax yan bi diis na te ñépp war nañ maa jàppale soo gisee ma ne yan bi diis na diisewul ci liñ may wax loo parce que dafa tiim sama bopp waaye egsi wu ci man damaa miyoog mënumaa gis loneti jàmbur laa takk waaye déggu leen ma waay dama wax ne boo déggee ma ne diis na maa ngi ci namm bu fekkente ne wax ji dafa am sorxo sorxo muy ruur li may wax waaye bu dégloo amee tekkeer lu am woyof na toy parce que yan bi dafa tiim sama bopp waaye egsi wu ci ndax man mënumaa gis damaa miyoog loneti jaambur laa takk te Cheikh Al Hadj Bari nee na zaatu iznin borom ndigal sawi moom man ndigal laa am Cheikh Hadj Malick nee na zaatu iznin sawi moom nee na borom ndigal bàyyil mu wéy. man ndigal laa am maa ngi nuyu kilifa yi ci tànt bi yépp su ma ko waxee maa ngi ci namm ñépp fii ay kilifa rek a fi toog ndaw ñi fi toog sax mag la ñu waxuma ak mag ñi ma ne ndaw ñi fi toog sax ay mag la ñu waxuma ak mag ñi maa ngi nuyu dawaayir yi fi rot si yépp ak seeni président ak seeni présidente di nuyu ñi fi ñëw te ànd ñoom kot te yéeneeg pas-pas sax leen a jóg di nuyu njabootu lislaam gi fi rot si yépp bàyyiwuñ kenn dafa mel ne mbir mi yokku na ndax fi mu ne place jafe na lool waaye ki yegg si ta toogagul ne jàpp ne ñaanama nangu fooy dem ren ba déwén di fa dem yow kot seetaat ko fooy dem ren ba déwén kenn gungewu la ni la nan dem ña nga àndaloon di rocc ko ba nga des si yow kot jaragu ko soob na yàlla ci coobareem mu def ci xéewal def ci sutura def ci barke ba jotaay jafe na dama doon wax ne ñu mayante yàlla dogal mbir mi dolleeku na ne fooy def ren ba déwén kenn néewu la ma gunge la te ñu nga àndaloon ñu gunge la daaw rocceeku nañu toog fa ngay dem jaragu kon ki ñëw te amagul fu mu toog ne jàpp ne ñaana ma nangu ba kero muy am fu mu toog bay Tamsir maa ngi lay nuyu yow laa fi tuddagum sa tur yow kenn li ko def daf di sama wayjur te xaritoo ma ma xaritoo ko ñu bokk liggéey bi am luy xew ci diggante ñaar ñu ko bokk yàlla musal na ci dala tax ma nuyu ko tudd turam jëxëran bay Tamsir maa ngi lay nuyu saaxu yeggalewu ma de damay continuer mu tàmbali li muy def ok man waxuma lu gàtt de maag yow dañ koy ànd di ko maafe man li ma wax gàttul dama ni sëñ bi def ne naay wax ba mu def ma siiñ rek waaw moom rek moo ma mën a taxaw loo yëf si bu ko defee ñu door liggéey bi ci ndigalu kilifa gi fas yéene waxtaan ak yéen ci sayiduna muhammad ndax moom rek rek moo ñu fi tax a daje tant bi ku jàpp ne keneen lañ ko wooteel ku du rasulillahi yaa ngi ci njuumte moom nag dund na ci àddina juróom benn fukki at ak ñett ñeen fukki at ya yëpp yëpp mi ngi tudd Muhammad ibnu Abdillahi ñaar fukki at yi des ci dund gi ak ñett mi ngi tudd Muhammadu Rasulullahi xam nga biñ koy dàkkental ci ibnu abdillahi foor na waaye biñ koy dàkkentale rasulullahi la gën a foor waaye ñaar fukki atam yooyu ak ñett noppi wu fi ci digle lu baax noppi wu fi ci tere lu bon di yar ñi bëgg a yaru di sellal ñi bëgg a sell di jàngal ñi bëgg a jàng di yéegal ñi bëgg a yéeg dem ba defar maas goo xam ne ñoo gën ku dul moom maas googe di defar ay maas ñu di ko donnante di ko donnante ba góor gu baax gu tudd Seydil Hadj Malick bokk ci ñaar roote ca école booba muy sunu wërsëg nu nun ndeem xam nan ko su fekkee xam gi nu ko xam tolloowul ak xami nu gone gu for jamaa su fekkee xam gi nu ko xam tolloowul ak xami nu gone gu for jamaa Sidi Xaj Malik lu rëy la ndax li ko yàlla defal ci boppam su wëlbatiku woon duut baaraamam ci dënnam ñu bare ànd ci ak moom waaye dafa joxañ ni njool màkk rek ay waaja li munu wax nag ci rasulillahi war nañ koo roy ci wax li munu won ci jëf war nañ koo roy li munu won ci jikko war nañ koo roy bokk na ca luñ ca war a roy nag teey ak teeylu teey ak teeylu tant bu day nii ñu tàntal ko koo xam ni moom la yàlla jagleel mu war a ràmm mbindee fi ëllëg yal nañ ci yàlla boole nga rot si fa bokk ci ñuy yaakaar ca ràmm ma bëgg fi sa bopp ba fàtte borom tànt bi bëgg fi sa bopp nag ba fàtte borom tànt bi man de daal na ma waaye waruma waxuma nit ñi man laay wax dama ne dal na ma waaye waruma te nit ña ba ñu nee bëgg nañu yàlla yàlla daf ni leen su fekkee bëgg ngeen maa wax ne bëgg ngeen ma topp leen ko su ngeen ko toppee ma sopp leen te man yàlla ku ma sopp soppi la qul qul waxal yow rasulullahi nee leen in kuntum ndeem nekk ngeen tuxibuuna allaha di way sopp yàlla fattabiuni topp leen ma man muhammad yuxbibkumullah yàlla sopp leen xamoo ni boobu boobu mandarga moom rek ko am topp leen ma yàlla sopp leen keneen sañu ko topp leen ma yàlla sopp leen moom la ko yàlla may mu dellu am beneen garanti sunu borom nee na lu génn ci làmmiñam rek dëgg la wa ma yantiqu anil hawa yàlla nee na lu génn ci gémmiñu rasulillahi bul werante dëgg la ci yàlla mu dellu am beneen garanti yàlla nee na diiru li muy nekk ak yéen di xool di xippi mësul xool lu ma naqari ma zaqa al basaru wa ma taxa sunu borom nee na yemu ca xol ak xel moo gën a garaaw waaye moom poñe naa xelam poñe naa xolam mësul xalaat ci lu ma neexul ma kadaba al fuaadu ma raa sunu borom jël jëmmi yonent bi di ko tudd cër par cër cër bu ne mu tagg ko ba yàgg mu ne ubbi naa dënn ba mu ne ŋàpp xeeti xam-xam yépp laa ca sol alam nashrah laka alif boobu listifhaamu taqrir la taqrir la alam nashrah ndax ubbi wunu sadraka sa dënn laka ñeel la yow Muhammad looy tontu aha kay fi ngay déggee maqaama njool makka mën nga arrière yonent yàlla Moussa moo doon ñaanaan rabbi israh li sadri yàlla yàlla nañ ma ubbil sama dënd kële nag ñaanu ko suñu waroon daf ko ne def naa ko démb afa man sharaha allahu sadrahu li islam fa wa ala nurin min rabbihi te yàlla nee na ku ma ubbi sa dënd ba nga nangu l'islam branché naa la sama lumière maa lay niital maa lay jàpp sooy dox di tumpang tumpang doo fa kattalu nee na fa nga dëkk man maa koy xàll maa lay gooral ci xib la goo xam ne ëttu leer la ëllëg nit ñi li ñu tiit muy bakkaar sunu borom nee na yow rasulillahi mësoo ko am mais dégagé naa sa gannaaw wa wadaana anka wisraka lu naroon a diis ci sa gannaaw ëllëg rek teggi naa ko sa gannaaw bëndal yamu ci mu ne ko bu la kenn propagandal bu la kenn propagandal bu la kenn publicité def naa ko démb wa rafaana laka wal maana la azkaru ila zukirtu maay ku ma tudd man yàlla bu la ca boolewul tuddaguma wa damma al ilahu isma nabiyi min ismihi ida qaala fi l aada ida ida qaala fi lxamsi almuaddinu ashhadu وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد sàng boobu laa bëggoon rek ñu may ma ma waxtaan ak yéen gannaaw nuyoo beeg ziyaara yi ci mbindu ñàkk sikk si Seydi El Hadji Malick Sy waaw ñàkk sikk si Seydi El Hadji Malick Sy moog yi mënula ñàkk ñoo bokk sant adduna mën naa ñàkk asamaan asamaan suuf suukar xorom soxna xaalisu Gàmbi dalasi ok ok ok ok bala ñuy dugg ci liggéey bi cant war na ku ne waaye ñi fi teewoon daaw te teew ci ren a ci raw dama wax ne bala ñuy dëgg ci liggéey bi cant war na ku ne waaye ñi ko fekke woon daaw fekke ko ren ñoo ci raw xam nga lu tax am na ñu ko fekke woon daaw tey ay bàmmeel lañ am na ñu ko fekke woon daaw tey ay bàmmeel lañ waaye ñooñu da ngaa defee ni ñàkk fu laa leen tax a dee kon ñi fi des fu la baaw leen fi de ah te ki leen fi jële ku mu diir jàmm la ki leen fi jële ku mu diir jàmm la alquran nee na dee nit ñi dañ koo ragal ba di ko daw waaye nee na fa ñu daw jëm fa la leen dee di koj am ku ne man damay taxaw kon xaar nan xamtalu mu ni ko waaw kay mu faf la dab qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu ca kanam am ku ne man damay xaar na nga nang xaamtalu mu ne ko ay na ma takoonoo waaw kay boo daagoo mu dab la boo doxee mu kar la kon ñi dem ki leen fi jële kum diir jàmm la kon ku fi des moo la fi bàyyi te billaahi jéego bu waaye jéggi te rusuloo ca am ca gàcce am na ku ca jàpp déggu leen li ma wax de sëñ Aboubacar si maa ngi lay nuyu dama jóg ci xaal waaye yow laa war a jëkk a nuyu yow laa war a jëkk a ziyaara sa toogaay bi moo di toogaayu njabootu Cheikh Seydi El Hadji Malick yépp te Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour si borom daara ji nekk ci xilaafa gi jiite ko mooy jataayu Seydi Aboubacar bi ñuy xaar mooy jataayu Serigne Abdoul Aziz si junior mooy jataayu Serigne Maodo si mooy jataayu sa rakk yu baax yi ak sa mag yu baax yi yépp waaye man Serigne Mbaye bu ma santee su may jóg damay nekk ci xaal ndax moom bu jaarul yoon du ma ko baal day dal ci sama kaw moo tax sànq am na kuy kaf ak man fii naan mën nañ way ma ni ko ah xanaa su ma waxee ba way jot waaye man kenn rek ma mën a noppiloo tey muy moom ndax li may wax moom a ko wax la ma ne jéego bu waay jéggi sa tànku ndeyjoor tekki sa tànku càmmoñ te rusuloo ci jéego ba am ca gàcce am na ku ci jàpp muy yàlla nu taxaw fii daaw ci guddi gi sànni wenn saan aw saan la nu sànni de saan wa bëtt ay seconde bëtt ay minute dem bay ay heure heure ya tegaloo bay ay bés bés ya tegaloo bay ay weer weer ya tegaloo bay ab saan saan wi ne kàng tey nu dégg kàng ji xam nga saan wi nu sànni woon daaw mooy yàlla nan gaa mujjee woon mu diw saan di xalaw xalaw yi rek bëtt minute yi bëtt heure yi bëtt bés yi bëtt weer yi ba muy fukki weer ak ñaar saan wi ne kàng tey ci ëttu ndar ci wetu dex gi ci wetu hôpital bi kanam yëpp jàkkaarloo di niroog ñu toog àjjana mutaxaabilin ala sururin mawdunatin mutakiyin alayha mutaqabilin saan wi ne kàng ñu fekke ko kon ñëpp war a sant yàlla waaye ñu ko fekke woon fekke waat ko ci raw te am na loo xam ne boo demee ba am ko boo cuunee defee sa njàmbaar la waaye am na ku daj fukki loola te amu ko moo tax mën a waaxu baax na waaye xamu yoon a ko gën mën a wut baax na waaye am ku la dimbalee ko gën ca Côte d'Ivoire ba may jàng benn law bi dafa jóg ci ajo bi ni ma sëñ bi ma ne ko labbayka mu ni ma jàmbaar amul ku yàlla seetaan nga yaafus jàmbaar amul ku yàlla seetaan nga yaafus te yëguloo ne am na benn laaya si daw bakar firi naa ko beneen firi yi laaya ba mooy yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idin lillah firi naa ko beneen firi laaya bi yàlla wax ci alquran ni bés a ngi ñëw boo xam ni bakkan mënalul bakkan dara mbir yépp a ngi ci loxo yàlla ma ne loolu am na fii ci àddina loolu am na fii ci àdduna le 14 novembre ci njël ki yàlla roccee fii ci réew mi ñu yóbbu ko ca Tiwaawan ca kanamu Zawiya Seydi Hadji Malick Thierno Muntaga xalifa Cheikh Al Hadji Omar taxaw njaboot Seydi Hadji Malick yëpp taxaw bu nu mënoon dara keroog Baye Abdoul Aziz du nu mën gannaaw septembre dama juum septembre ma ne le 14 septembre ci njël ki yàlla roccee ci nun ñu yóbbu ko Tiwaawan to teg teg ko jëmmam ju tedd ji ci kanamu jàkka ja xalifa Cheikh Alxaaji Umar ñëw njaboot si di Xaaji Malik yëpp ñëw couche peuple bi yëpp fàq Afrique fàq ñu tiim ko di kabbar ji ko tiim billahi bu nu mënoon dara duñ wan gannaaw yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an xew na keroog wal amru yawma idin lillah mbir yaa ngi ci loxo yàlla ولو أن كل الورى أجمعوا على مطلب دونه ما استتم ولو أن كل الورى أجمعوا على مطلب دونه ما استتم فما شاء كان وما لم يشاء فممتنع كيف شاء كان اللهم صل وسلم على نبي الأتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم ولو فما شاء كان وما لم يشاء ولو فما شاء كان وما لم يشاء فما شاء كان وما لم يشاء يومين فما شاء كان وما لم يشاء فما شاء كان وما لم يشاء يومين فما شاء كان وما لم يشاء فما شاء كان وما لم يشاء ومرض ممتنع كيف شاء احتكم ويفعل في ملكه ما يشاء تعالى الاله وجل الحكم اللهم صل وسلم على نبي الأتى بالهدى والكرم صلاة تدم وتبقى إلى قيام الأنام وحسن الأمم ووسألتك يا خالقي ضارعا بقلب سليم ونهج الأمام بشيء ولا شيء أعظم منك عليك أيام الأولى والكلام اللهم صل وسلم على نبي الأتى بالهدى والكرم صلاة تدم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم فقد خاب في من سواك الأمل وعبل رجاء سواك البصم ولم يبقى إلا عليك اعتمادي وما لي سوى بابكم ملتزم اللهم صل وسلم على النبي الأتى بالهدى والكرم صلاة تدم وتبقى إلى قيام الأنام وحسن الأمم وبحرمتي مكة أم القرى وبحرمتي مكة أم القرى بحرمتي مكة أم تمتحنني بحرمتي مكة أم القرى أيوة بحرمتي مكة أم لا لا لا لا بحرمتي مكة أم القرى بحرمتي مكة أم القرى بحرمتي مكة تنتبه تفلني بحرمتي مكة تفلني تفلني بحرمتي مكة تنتبه تفلني بحرمتي مكة تفلني تفلني بحرمتي مكة أم القرى الله بحرمتي مكة أشرب الخلق بحرمتي مكة سيد الخلق بحرمتي مكة أم تنتبه تفلني بحرمتي مكة سفينت بي في الرمة مكة أم القرى أروع الرمة كعبتها والحرم فيا أرحم الراحمين ويا كريما يحب السخاء والكرم تكرم تكرم تكرم تكرم كرم تكرم علي وجود بالرضا وياسر خلاصية مما أهم وثم الصلاة على المصطفى شفيع الخلائق في المستحيل
ولو أن كل الورى أجمعوا